Aïcha Omar kaddu gaay uh-huh. uh, Pape Abdoulaye Touré uh, ñu am mbégte nag ah parce que c'est pas évident nga teew parce que Kolda nga nekkoon presque semaine bi yëpp waaw uh, mais bi la wooyee rek da nga ko def yitte ñëw loolu tam neex nañu loolu di la jaajëfal bu baax a baax waaw waxtaan wi li gënoon a tax a jóg mooy li jëm ci tournée yi ngeen di def di sensibiliser ndaw ñi ci wàllu bindu bi. ci liste électorale yi naam temps bi gàtt na un mois mais yéen a ngi bay seen waar mais dafa am actualité bu nu dappan ah. xam nu mu ko yow entre juriste de formation droit nga def n'est-ce mm, droit nga def université. mooy mbiri Sitor Ndour juróom-ñetti weer ñu tëj ko ci kaso bi ñu ne dafa violé ak certificat médical génnoon ba ñu bari jàpp ni li ñu ko jiñ moo ko def waaye nag àttee gun ko woon kon day bénéficier wu ci présomption d'innocence ñu xëy tey ñu ne bénéfice du Euh, peut-être yaa ma gën a maîtriser droit dinga xam lu tax bénéfice di doute te teg ci ñu jiñ xale bu jigéen bi ne extorsion de fonds dem na bàyyi avocat am sax wax ni bu ñu deful nànk xale bi sax mun nañ ko topp ndaxte dafa tuumaal nit naka sudul noonu waaye tamit dafa doon tuumaal nit ngir lekk ci moom xaalis ay jamono jooju ñu bàyyi Sitor mu génn fa seen i ñibbi te malgré tuuma gu rëy googu yëpp jamono jooju. am na ci ñoo xam ne danoo wax seen xalaat wala ñu bind seen xalaat ñu ngi ci kaso bi fa seen faa korité fa Ablaye ban jàngeen ngay def ci doxalinu justice bu Sénégal. waaw euh, Omar euh, man moom euh, Sénégal du ma am fierté bu baax di wax di wax droit parce que ñi jiit réew mi xamuñu droit pour dire vrai du soo waxee nag ñu foog ni da ngay politique waaye soo ko tegee ci ay fait rek di nga xam ne réew mi lépp am na fi sauf yoon parce li nga xamante ni moo ñu tënk ñun ñëpp da ngay gis matin mi soir ñu koy salfaañi te du mujj fenn après donc lenn lu li ma ciy bëgg wax mooy euh, ñun ñëpp xam nañ ni euh, viole léegi crime la. Mhm. te xam nga crime instruction bi c'est illimité duñ ko àpp su fekkee délit la mën nañ la ne euh, juge d'instruction bi am na trois mois ba six mois. Mhm. mu garde la ci kaso bi six mois nag su waxul dara ci dossier bi. mën nañ la may liberté provisoire nga dem toog sa kër. loolu ci délit la mais quant à crime euh, c'est-à-dire l'instruction est illimitée mën nga nekk ci kaso bi pendant ay ati at te kenn dul at. moo waral da ngay dem léegi-léegi ci kaso yi ñun ñi suñu jàppee dañuy gis cas yu mel noonu yu bëri ñoo xam dañ leen di jàpp ñu def fa quatre ans cinq te kenn du wax dara ci seen dossier. waaye lu ñu seetlu lu ñu njëkk a seetlu ci dossier bi mooy euh, kumba am ndey ak kumba amul ndey parce que moom lan lañ ko jiiñ viol demal tey nga def le tout de toutes les euh, de de toutes les prisons nga xool ñaata nit la ñu jiiñ viol def nañ fa ñaari at ñetti at te ba léegi kenn waxul dara ci seen dossier parce que dafa am fu mu féete ci wàllum politique moo tax ñu caxat caxatee dossier bi tey yóbbu nañ ko instruction boucler nañ instruction bi dem na euh, audience ba ñu ne ko bàyyi nañ la bénéfice du doute nag soo ko déggee mooy amuñu ay preuve yi wane ni lu ñu lay tuumaal ni yaa ko def mais certifié mais mais viol liy certifié preuve yi mooy euh, certificat médical alors que certificat médical bi li mu wane woon mooy xale bu jigéen bi egg nañ ci kaw. effect effectivement xam nga tey en fait li nga wax kenn mënu koo dindi. Hmm. waaye sooy gis kii dafa indi certificat médical ñu ne ko am nañ bénéfice du doute waaye am na koo xamante ne ci opposition bi dañ koo jiñ viol amul certificat médical bi setal ko wecc. ñoom ñuy wër ci plateau yi ne dafa violé. te ba tey jii nanguñ ko setal. te ba te ba ba tey nii nanguñ ko setal yóbbu nañ ko chambre criminelle. war ko àtte. cest loolu mooy paradoxe bu am. ci réew mi mooy rek. mooy waaw mooy le président Ousmane Sonko bi nga xamante ne jiiñ nañ ko fi yoon gynécologue bi def certificat médical bi ñëw na ci seeni plateau wala def na ay déclaration de presse di wax ne ñu ngi koy menacer parce que dañ ko doon proposer à ce que mu changer certificat médical buy setal Ousmane Sonko bind beneen certificat médical bu koy dugal moom moo ko wax. Mhm. Alfousseyni Gueye la tudd. su ma juumul moo nekk CTO ah. moo nekk CTO donc loolu yëpp xew fi mais malgré tout ça. juge d'instruction bi nee na ko waa ji yow da ngay dem procès par force tey foofu la réew mi toll xam nga tey soxna so euh, ku jigéen ki bu naan ay extortion de fonds mais yaayam moo taxaw wax publiquement ne waa ji proposé na ko ñaata million pour mbir mi bañ a jëm kaw. Mm-hmm. waaw ci Pape Alé. yaayam ci boppam. Ah, yaayu soxna si xam nga xale kooku xale la. mais yaayam ci voilà yaayam ci boppam moo taxaw publiquement ne proposé nañ ma nangami million pour ma pour bañ affaire bi jëm kaw ñu ndëpp ndëppal ko ci suuf. waaye yow sooy dem bay proposer xaalis c'est parce que yow mi sa loxo setul ci li ñu lay jiñ waaye tey réew bu ñu am mais loolu warul bett kenn parce que Bougazelli 32 milliards faux billets lañ ko jàppee loolu tamit crime la parce que loolu su duggoon tey ci économie réew mi économie réew mi dina nërmeelu ba nga xamante ne sénégalais yi ñu ñu ci ñu ci pauvre moom dinañ kon ne torox waaye tey mu ngi ci liberté provisoire boo xamante ne nekkuñ sax contrôle judiciaire nekkul bracelet électronique nekkul sous liberté conditionnelle nekkul ci dara liberté provisoire la ne. waaw liberté provisoire c'est-à-dire yaa ngi en liberté da ngay garder sa droit yi nga am yépp en liberté mën nga jël sa passeport tey tam dem voyage yi daw bokkut ak li sous contrôle judiciaire nga am doo mën a génn réew mi donc tey fii la réew mi toll ku ànd ak Macky Sall mën nga def lu la neex ci réew mi du mujj fenn waaye soo am ak Macky Sall mën nga bañ a def sax ñu takkal la yóbbu la ci kaso bi comme ni nga ko waxee sànq ñoo xamante ni dañuy dem wax dara ñu leen kaay diffusion de fausses nouvelles nëbb leen jant bi yóbbu leen instruction ñu teg ko fan. yow def nga diffusion de fausse nouvelle taxaw nga ci émission wala dem nga sa page Facebook. loolu la moo ci jar instruction. flagrant délit la. mais duñ leen yóbbu flagrant délit moo tax lii moo tax ñun d'habitude ñuy wax ni cette justice su ñuy wax justice bi dañ dafa dafa politique dañ ko politiser c'est pas parce que dañoo amul ay magistrats yu digne de déedéet parce que ñoom xam nañ am nañu ay magistrats yu integre yoo xamante ne soo jëloon tey dossiers yi ñu yóbbu instruction yëpp teg ko seen table ñu libéré booy yëpp sans distinction aucune mm-hmm. mais bañ bañ ju juge yooyu jot ci dossier yi moo tax ñu leen di yóbbu instruction di jaarale ci procureur de la république qui est un magistrat soumis au service du ministre de la justice et le juge d'instruction lui aussi qui est un magistrat soumis. moom de droit la def université loolu daal day <laughs> laaj bi ci côté boobu sax ndax comme juge bi àtte na ba pare wala boog nee na amul benn preuve bu koy man ni mën na jaar ci loolu pour àtte wala pour taqal si toor ndax procureur mën na def appel ci dossier bu mel nii. waaw mën nañ ko xaar. ah bien sûr. bu ko neexee mu ne àtte bi doyu ko. waaye du ko def. ah, ah procureur mën na def appel ci dossier bi waaye du ko def procureur kan mooy njiitam. ministère ministre de la justice. Ah. ministre de la justice kan moo koy fal décret kan moo koy joxe ci réew mi. président est-ce que tey procureur am na fitu di topp koo xamante ne APR la ne wala Benno Bokk Yaakaar su doon loolu la mu topp ñu ñu ñu tuumaal ci rapport Covid bi. Hmm. période bu ñuy tëj sénégalais hmm. ñu sàcc seen i milliards su doon kese la procureur topp leen te pourtant am na prérogative boobu. Mhm. procureur tey ci doole gi ñu ko may moom ministre mun na ko wax toppal ma diw. loolu ci texte yi. ministre mën na ko wax. Mhm. mais ministre munu koo aaye topp bu muy topp keneen koo xamante ne ministre jox ko ordre. Ah, warul demander autorisation ministre bi pour topp loolu texte yi waxuñu loolu. mais procureur mun na dégg clameur publique maanaam benn toole am ah diw dégg nañ dafa sàcc alalu askan mhm. ci dégg-dégg rek ci presse bi rek mu ubbi mu mu mu mettre en mouvement l' action publique jël dossier bi jox juge d' instruction ne ko enquêtal ma. Mhm. mais tey suñu procureur bi ñu am mooy koo xamante ni jël initiative di topp koo xamante ni Benno Bokk Yaakaar la bokk. Ah, te ñëpp ñu muy topp ci opposition bi day jot ay instructions yu jóge ci ministre ci président jaar ci ministre ñëw ci moom tey foofu la réew mi toll mais nag la victime. moom am na possibilité wu def appel parce que képp ku ñu. àtte mais mais sànq maa ngi dégg ñu ne moom appel même bu ko defee appel bi mënul téye ci tondoor prison. Mm. maanaam <clears throat> victime bi. xam ne l'appel est suspensif. est suspensif mais moom mënu ko. ministère public rek moo ko mën a def mooy procureur. pour pour que ñu mën ko kon continuer di téye prison. waaw boo xoolee ni affaire yi demee mooy wane ni waa a rëcc na. procureur de mooy yóbbuwaate nit ñi prison mandat de foo ko déggee rek. procureur la. même bu femme bi defoon appel lu tax ñu téye ko ci. waaw te appel boobu nag xaar ko fi ak fukki fukki at. <laughs> ah bu defoon appel. non non du yàgg benn appel moo fi fast track muy appelu président Ousmane Sonko xamante ne. même Khalifa Sall waxoon nañu mooy record mais bii mooy record bi. vraiment parce que Khalifa Sall ñu ngi ko tëj le 30 mars 2015 la xaw ma 2016. mais appelam ngi mi ngi am ci juin. mars ba juillet. waaye président Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang. 15 jours un dossier privé. une affaire privée nga xamante ne Mame Mbaye Niang su porté woon plainte procureur amul sañ-sañ boobu parce que xam nga en dafa am lu ñuy wax les infractions privées. Mhm. maanaam man kii tey su nekkoon sama soxla soxna Ablaye sama turandoo maa ngi maa ngi jéggalu <laughs> mais damay jël exemple tey Didi su nekkoon sama soxna. man ma dem tromper Didi. dem def lu ñuy wax adultère dem sëkk keneen ku dul sama jabar. yoon dafa ne loolu c'est une infraction privée. procureur même su ko yëgee amul sañ-sañu di mettre en mouvement l'action ah, publique tant que Didi mii nekk sama soxna demul porter plainte pour adultère. su ma amoon tey sama papa su ma sàccoon alalam wala sama papa sàcc sama alal man en tant que doomam. Mhm. ñun ñaar victime bi tant que portewul plainte procureur. amul droit wu di ubbi. di di di yóbbu mbir mi ci yoon parce que loolu na ñuy wax les vols à ascendant ou à descendant. Mmh. c' la même chose avec la diffamation su ma la diffamé woon tey fii ba suba ba géex yàq sa der gi yëpp. Mmh. soo jugul porté plainte yoonu procureur nekku si te soo porté plainte soo retiré plainte bi plainte boobu cause d' de l' action publique la. juste pour expliquer Sénégalais yi que dossier Sonko Mame Mbaye Niang c' est une affaire purement loolu yoonu procureur nekk ci magistrature bu Sénégal foofu bëggoon naa ko laaj. mais gis nañ ñu procureur gis nañ ñu procureur yokk ci yeneen infraction yu ci bokkul muy faux et usage de faux de document administratif ak injure publique ba pare gis nañu procureur moom moo def appel ci dossier boo xamante ne yoonam nekk ci moo tax ñun ñu ne dossier bi dossier privé euh, politique la. xam naa ni forme civile nga bokk mais gis nañu mouvement bu bees dëggal waa société civile mouvement bu bees bi nga xamante ne ni mooy plateforme euh, des force vives de la nation gis nañ keroog euh, daanaka ñi nekk ci opposition bi ñëpp dem nañu signé ji euh, ponk bi ñu gën a leeral nag mooy ñoom xeex troisième mandat mais est-ce que genre combat yu mel nii ñoom pare nañ pour boole boole boole ko ci parce que gis nañ euh, fan yi injustice bi ni muy ni muy ni muy ni muy ni muy ni ñu koy doxalee. oui xam nga euh, combat boo gis rek dafa am benn combat bu ñuy jël def ko mu nekk vitrine bi. Mm. mu nekk vitrine bi mais ci suuf day am ay sous combat yoo xamante ne dañ koy jël en charge tey sooy xool tey ci F24 bi muy le mouvement des force vives de la nation ba ci ñu ñu jàpp ci kaso bi te Macky Sall tegu ko ci yoon ñoom ci xeex bi lañu bokk et ci mobilisation yi ñuy def. di nga gis ci revendication yi la libération sans condition et sans délai de tous les otages politiques ñi ñuy jàppee ci manifestation yeeg ñu ñuy jiiñ affaire force spéciale ak ñu ñuy jiiñ commando ak ay ñoom nit dof yi nga xamante ne live lañ def ñu jàpp leen te ñu gis dof ndey ànd ak soxor baay di di di di di di di di terroriser sénégalais yi di saaga tout une nation yor arme blanche sans autorisation te mu mujjut fenn fii la réew mi toll tey ci injustice moo tax lii ci diine rek ñun dañoo am obligation xeex ko parce que yonent bi moo ñu jàngal alayhi salaatu wasalaam ne soo gisee lu dul dëgg danga koy xeex ak sa loxo soo ko mënul xeex ak sa loxo xeex kook sa làmmiñ sa kàddu soo ko mënul xeex ak sa kàddu nag naqar lu ko soxal bu ñu xam ne lii injustice la donc ñun lu ñuy def nii jaamu yàlla parce que waxee ba tey diggaatuñu si si si. xam nga ak koor gi nag événement mënul bëri. day xool parce que le 5 le 5 le le 5 ak le 18 bi. ñu ngi ñu ngi préparé dina am benn plan d' boo xamante ne dinañ ko fësal. au grand public et que dans les jours à venir ngeen gis ay rassemblement yu yu mag a mag yoo xamante ne force vive yooyu nga xamante ne c'est plus de cent et quelques organisations de la société civile et des partis politiques et des personnes indépendantes ñoo ci bokk donc di ngeen gis ñu génnee suñu plan d'action pour wane ni dinañ def bés sàngam saa dinañ defaat bés sàngam lii mhm. donc incha allah ñu ngi ciy liggéey baax loolu yéexul euh, plateforme bi parce que en 2011 M23 heure bi mi ngi nekkoon en action pare quoi nekk sur le terrain ak yaanamar mais tey jii à dix mois des élections est-ce que nekkul da ngeen yéex a jug waaw xam nga pour nga dajale nag organisation yu mel noonu yu toll noonu yu toll ci dimension boobu ak ay parti politique yi nga yu bëri yoo xamante ne mën nañu wax ne ci ku jege lañ nekk mais ay wujju lañu day xaw a day xaw a metti ci waxtaan yeeg ci xool charte d'engagement yeeg ci xool naka ni ñuy toogee wak kan moo war a jiite plateforme beeg kan moo war a lii kan moo war a teg laa nga loolu du lu yomb parce que pour la première fois ñu am une plateforme qui regroupe autant d'organisations politiques comme de la société civile ainsi que des personnes indépendantes. mun nañu jaxte ne da ngeen di politique rek moom nee na article vingt neuf beeg trente bi ngeen bëgg ñu changé ko ci code électoral moo leen tax a te loolu na loolu du seen rôle yéen. Moussa Ba Diakhaté nee na nee daal ay ay politiciens ngeen ay gars yi ngeen rek yéen yu société civile Euh, kooku moom du ñu man moom du ma am lu may tontu ci yenn mag yoo xamante ni. mais gars yi leen di giñ ay sonk ngeen nag euh, euh, yéen ñëpp nii ñi ñi ko war ñëpp coolee fi ne rek mais sonko ngeen di liggéeyal est-ce que loolu du yàq liggéey société civile. dañuy gars yi dañoon jiiñ société civile bi ay makis la. Mm, xam nga parfois mbir mi su la arrangé wul léegi ngay waxee nee ni mm-hmm. mbir mi su la arrangé wul. ci ngay waxee nen ni parce que Y'en a marre mi 2011 dañu woon ngi woon siège Y'en a taxaw gi di mm-hmm. signé mm-hmm. billaahi Macky la ma fàttali bi mu demee Y'en a marre di signé di signé même même même même bi la ak yére bi mu sol ak <laughs> nga xam ne àddina dëgg la donc ñoom ñooñu doon wax waa Abdoulaye Wade ñooñu doon wax ñun ay Macky lañu mm-hmm. ah ñoom ñooy politicien parce que discours politicien lañ yor depuis ah. boobu ba léegi même li ñuy wax télé bi rek télé bi dañuy télé Sonko la mais dañu woon télé Macky Sall la woon wallaahi ah. te bés bu Sonko ah, faloo ñu ne télé bi télé la keneen la parce que da nekk seen constance yéen vous êtes toujours mhm. au côté du peuple parce que dafa am lu ñu war a def distinction muy gouvernement mhm. ak état bokkut gouvernement benn pàcc la ci état mais état c'est c'est le peuple. peuple c'est le pouvoir exercé par le peuple et pour le peuple. te mhm. sénégalais bu nekk am na sañ-sañu nag xool nan la ñu yoree alalam te yéen da ngeen di may opportunité. à ce bas peuple bi nga xamante ne amuñu kàddu. Mhm. ngeen leen di waxal seen soxla mais au delà de ça ngeen leen di invité ci plateau yi ñi ñëw di toog di wax seen xalaat ak seen gis-gis ci réew mi te mhm. loolu mooy démocratie. mais 2011 société civile dafa amoon doole mais nag man société civile seen doole moom yëgatuma ko loolu lan moo ko jur 2011 moom société civile amoon doole. waaw xam nga mooy comme lu ma la wax sànq rek. politique moo xaw a yàq seen liggéey. plateforme bi. bu ñu ko tegeeg léegi matul weer matul sax euh, semaine. ci la ñu nekk dimanche bi passé lañ ko officialisé la ñu lancé officiellement plateforme bi donc mënu guñoo natt dooleem tant que defagul ay activité na est-ce que yéexul parce que. non mën na yéex mën ngeen ko jàppee lu yéex mën ngeen ko jàppee lu bañ a yéex mooy comme lu ma la doon expliqué sànq. organisation yi toll ni ni mel. pour nga regrouper leen ñoom ñëpp ci benn plateforme day laaj waxtaan ba am consensus ci point yu bëree bëree bëri te loolu moo taxoon mbir mi xawoon na yéex mais vu que officialisé nañ ko am nañu yaakaar ni ci weer yii ñu jëm nu mënuñoo génn ci weeru koor gi te doo leen dégg ay activités yu am doole yoo xamante ni cette plateforme F24 dina ko poser mettre ko en exergue ba citoyen sénégalais bu mu mënti fu mu mënti nekk mu ñëw bokk ci parce que mbir mi du est-ce am handicap parce que bu ñu rombee si lii daa mel ni élection yi léegi mu ñëw ku nekk da ngay jéem a xool nooy def yow tamit ba jéem a regroupé ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy say ñooñ waaw xam nga loolu nag politique yi nañ koy bàyyil mais plateforme bi am na ay société civile yoo xamante ne ñoom seen yoon nekkul ci ay élection euh, dagaanuñu baatu askan bi mm. ñoom dinañ continuer liggéey mais en tout cas daal objectif principal mooy Macky Sall moo fi loolu dinañ dinañ taxaw tem ba moom ñu respecté loo ko kàddoom. mais loolu balaa ñu ci egg mooy bindu bi yaa looloo gënoon tax ma wala fi tey. waaw yéen yéen a ngi ci def ay tournée di def ay sensibilisation pour xale yi bindu terrain bi ban jàngat nga def terrain xale yi songu mais yombul ci ñoom pour ñu bindu euh, lan moo xew ci terrain bi. waaw xam nga ñun waa Sénégal notre priorité bi paa moom damay génn ci plateforme bi ñëw ci Sénégal notre priorité mhm. euh, dañoo yàgg ci ci ci ci ci affaire liste électorale. lu tax ñu yàgg ci nag mooy euh, man mi en question en mille 2018 dama demoon bindu ji sama carte génn ci verso bi ma gis munoo voter ne peut pas voter personne non inscrite sur le fichier électoral man ci laa bokk ba léegi ci laa bokk te dinañ ci ah, ñëw mënoo voter ba léegi man musuma voter bu ma juddoo ba léegi te loolu gàcce sax la may def ma koy wax xam nga xam naa ni sama yenn xarit yu bëri loolu lañ may tooñee yow li ngay wër ci plateau yi di wax di kaas ba léegi mënoo voter mais fekk du ci yow du ci man te loolu mhm. bi ma demee bi uti carte ñu bindal ma personne non inscrite sur le fichier électoral ma wër nag ba sonn di jaabante daaf di lijjanti pour ñu bind ma ñu ne mënoo bindu bàyyil ba élection locale 2022 parce que élection locale yi sax 2021 la waroon am en en principe mais ñu toxal ko toxal ko toxal ko ma ne leen ah bon ñu ne ma ne leen léegi kon nañ mettre en place benn collectif parce que nekkate du man kese mais bëri na ay sénégalais rawatina ndaw yoo xamante ne seen i carte dañu leen di defal personne non inscrite sur le fichier électoral ci jamono jooju laa mettre en place un collectif bu ñu doon woowee collectif des personnes non inscrites sur le fichier électoral et de celles qui n'ont pas récupéré parce que ñaari question la ñoo xamante ne inscrire nañ mais mënuñu jot seeni carte parce que dañuy bindoo Géejawaay ñu sànni seen carte yëmbal wala ñu bindoo euh, Tamba ñu sànni seen carte Fuuta wala maatam xam nga kooku du gis kartam du xam kartam fu mu ne mm-hmm. yooyu noonu yëpp nekkoon ay jafe ñu jëloon ko en charge dans le euh, au niveau du collectif ñu nekkoon ci di ci liggéey di ci liggéey bon certes binduñu woon mujjuñu ñoo bind ci liste électorale yi mais quand même jàppale woon nañu ay sénégalais yu bëri à travers ñun relation yu ñu am ak DAF parce que demoon nañ ba toog ak directeur bi fa nekkoon mi Ibrahima Diallo à l'époque si je me trompe pas ñu indil ko fichier base de données boo xamante ne c'est pour tous les ces sénégalais là yu bind woon ci suñu base de données bi te jotuñu woon seen carte léegi DAF di leen yónnee ay message di leen wax seen carte mi ngi bërëb sàngam mi ngi centre sàngam donc loolu defoon nañ ko ci am ñoo xam ñoo jël seen carte yóbbul leen ko. léegi fii nag loolu loolu nekk liggéey boo xamante ne juste dama bëggoon def récapitulatif boobu pour wane ne ñun du gulet ci ñun ñuy yëngatu ci wàllum list électorale yi ak mbindu bi. maintenant jafe-jafe yi ñu doon signalé. moo nekk di am ba léegi. te dara waralu ko lu dul un un gouvernement parce que du ma wax état soo waxee état mën nga tooñ ñeneen ñu ci bokkut. mais un gouvernement qui a montré une volonté manifeste pour que nit ñi bañ a dem bindu ji. xam nga dans un état sérieux dans un état normal et normé gouvernement bi moo war a euh, ñaax nit ñi pour ñuy dem di bindu ji. loolu lañ daan gis RTS. loolu lañ daan gis def ay communiqué xam nga ministre de l' intérieur dafay jot benn budget boo xam dañ koy dégager. Mhm. pour sensibilisation. communication communication mbindu mi maanaam mbindu mi un moins avant waroon nañ jàll na es spot yi. Mhm. leen jour tel liste bi euh, dinañ ubbi euh, fichier électoral bi. ku bëgg a bindu ji demal bërëb tel foofu ngay bindoo sooy dem yóbbaale lii ak lii ak lii loolu nekkul woon ay parti politique yu nekk ci opposition en l'occurrence Pastef nekkul ñoom loolu mooy seen mission loolu c'est une mission déléguée à l'État du Sénégal à travers son ministre son ministère de l'Intérieur qui est chargé des élections parce que budget boobu léegi ñoom nañu génn ñu wax sénégalais xaalis boobu fu mu ne parce que yéen Walf ak euh, solution ak yeneen télévision yeeg yeneen plateforme groupe média yëpp dañ leen a waroon a fay ci xaalis di leen jox ay spot ne leen dee leen jàll jàllale lii lu mu gàtt gàtt ñetti fa ñetti yoon wala ñeenti yoon ci journée bi. muy jàll ci rajo yi ñun bu ñuy nekk xale amuñu woon parce que ñoom bëgguñu nit ñi bind ci xam nga yow li nga waroon def defoo ko mais ñeneen ñi ngi ñi ngi lay defal li nga war a def muy sensibilisation bi demal xool tey waa Pastef lan liggéey bu am solo bu ñu ciy def nga dem xool tey waa SNP muy Sénégal notre priorité bu ñu bokk liggéey bu ñu ciy def. maanaam ñun dañoo jël place su état ci domaine boobu pour sensibilisation bi. mais yow non seulement loolu yaa ko waroon def defoo ko mais yaa ngi xañ nit ñi pour ñu dem bind ji ci lan. demal Milan. Italie. am na benn vidéo bu ñu yónnee ñun waa Sénégal notre priorité ay sénégalais yoo xamante ne jour férié muy 4 avril bi nga xamante ne fête euh, journée Pâques la. ñu war a dem seen consulat parce que ñu nekk diaspora bi xam nañ ne amuñu jot. suñ leen nee du lundi au samedi ñu ci bëri duñu am jot pour dem di bindu ji te mënuñoo di di demander permission à chaque fois seen seen seeni responsable pour ñu leen bàyyi ñu dem bindu ji dañ koy def benn yoon ñu ñëw ñu téye leen wala ñu renvoyer leen mm-hmm. xam nga kooku doo mën a ñaanaat ñu ñëw jour di Pâques 600 personnes ñu ne leen 87 ni ñuy jël. kan moo ko wax consulat bi. comme fii ñu ne maa ngi gis benn vidéo keroog euh, ñuy wax ne non seulement dañuy dem foofu ren ba sonn bu 16h jotee ñu ne leen arrêté lañ. mbaaw mii looloo fexe mbaaw. voilà mbaaw rek. mairie bi du joxe mairie bi du joxe dafa ne du joxe résidence. Mmh. loolu tamit ñu bëggoon cee am te xam naa ne après dinañ indi ci kii. maanaam ñoom actuellement seen loolu c'est des faits Macky Sall ak nguuram bëgguñu nit yi dem bindu ji ci list électorale yi mais Macky Sall ak nguuram ñoo moom réew mi wala ñoo ñoo moom. léegi délai bi léegi ñu ak délai bi délai un mois bi ñu bari nee nañ war woon doon révision. Euh, ordinaire exceptionnelle mais. effectivement xam nga tey lu mat a bàyyi xel te loolu lañ bëgg sensibiliser sénégalais mooy nguur gi dafa lal ay ndëgg sërëx non seulement sensibiliser wul nit ñi mais dafa continuer di lal ay ndëgg sërëx pour nit ñi di ci tombe ba nit ñi duñu mën a dem bindu ci xam nga ñoom seen communiqué gouvernement bi lan la ñu wax du 6 avril au 6 mai. may wax sénégalais yëpp 3 mai 4 mai 5 mai 6 mai bokkul ci révision élect euh, kii bi bokkul ci bind bi. le 2 mai la yem <clears throat> ñu bëri jàpp na xam nga sénégalais d'habitude dafa bëgg dernier moment. Ah, ñoo ko tey ñoo ko tey communiqué ko noonu. sénégalais fu may waxee ak yéen nii leer na ma ni am na ay sénégalais yu toogoon seen kër naan dañuy bàyyi ba koor gi jàll ay côté le 3 le 4 le 5 ñu soog a dem bindu ji parce que dernier moment la. mais gis nga le 3 le 4 le cinq le 6 ñeenti fan yooy loolu période contentieuse la loolu bokkul ci bind bi période contentieuse mooy ñu ñu war a raje ñu ñu raje te jaarale yuñ ko ci yoon ñu dem dugal recours ñu ñëw moom période boobu donc mbind mi c'est du 6 avril au 6 au 2 mai mhm. maintenant ci biir diggante boobu génnee ci dimanche yi génnee ci férié yi génnee ci fête yi xam nga tey et gouvernement bi pour wax na ni ñoom dañoo am volonté manifeste pour nit ñi bañ a bind lii suñ ko yóbbu woon vacances élèves yëpp bindu ji étudiants yëpp bindu ji ñëpp dem bindu ji waaye duñ ko def mhm. dañ koo dugal ci mois boo xamante ne mu ëpp fet mu ëpp fet sénégalais yi du ñu concentré wu ci mbind mi korite gii rek dinañ balaa muy ñëw rek dinañ jël ñetti jours yoo xamante ne kenn du tal mbindu bi ñëpp a tal lu ñuy korite après korite bi ñu jëlaat ñaari fan wala ñetti fan ñi génn Dakar di julli ji hmm. étudiants yi nga xamante ne ñi ngi fii amuñu possibilité dem parce ñi ngi jàngi ba léegi nga nit mënul di jàng bàyyi fi jàngam naan day dem bindu ji loolu loolu yëpp nekk ay fait yuy wane ni état bi bëggut nit ñi bindu ji soo calculer lépp nga xool ñaata jour ouvrable rek lañ ci am matul matul 24 jours léegi yow ci biir 24 jours ñu ne da war a ut carte euh, carte d'identité su fekkee mosoo am carte d'identité euh, soo paree nga dem bindu ci te xam nga am na lu ñuy wooye commission d'enrôlement ak commission électorale commission d'enrôlement sooy xool ren sax bëriwut te loolu du yoon parce que xam nga commission d'enrôlement c'est comme commissariat commissariat képp ku fa dem bindoo sa carte su génnee da ngay gis la mention personne non inscrite sur le fichier électoral. Mm. yow doo bokk ci liste yi. parce que carte d'identité kese lay defar. seen yoon nekkul ci élection. Mm-hmm. c' la même chose avec les commissions d' commission d' ku fa bindoo doo am carte électeur carte d' ngay am. différence bi lenn la muy soo demee commission d' enrôlement ci ñetti fan gën ngaa bëri sa carte dina disponible. mais soo demee munoo am 24 jours ne da ngay dem commissariat jox la délai wu un mois balaa un mois sa moo tax loolu dañ ko waroon jëmmal ci fépp dans toutes les communes waroon am commission d'enrôlement tey soo jëlee Kër Massar noor bi ma dëkk maison de la femme mooy terrain Yékini fii fii fii euh, Sonko defoon waa meeting bu Pastef bi amoon en face foofu la commission d'enrôlement bi amoon hmm. élection législative yi passé mais ñoom tamit dañoo waroon communiqué ci sénégalais ne leen ku bindoo commission d'enrôlement doo am carte électeur hmm. mais malheureusement ils ne yi dans les am na sénégalais yu bëri yoo xamante ne dem nañu bind ci commission d'enrôlement yi foog ni bind nañu ci liste électorale ñu dem toog seen kër tegle seen i tànk man bi ma fa demee l'autre jour ay milliers et des milliers de cartes électeurs man sama rakk sax moo tax ma xam euh, commission d'enrôlement boobu parce que dama ko sonal ci bindu jël mu dem bindu ji ma ne ko demal jëli sa carte mais bu mu demee mu génn cartam cartam génn mu ma gis ci personne non inscrite ma dem demande ñu ne ma non fii commission d'enrôlement la d'habitude lu diire sax lu yàgg dix jours fukki fan lay def. wala quinze jours après ngay dem ci commission ngay dem ci commission bi. Ah. maintenant ñoom dañoo waroon sensibiliser sénégalais yi ne leen commission d'enrôlement. Mm-hmm. c'est comme commissariat. Mm-hmm. képp ku fa bindoo. carte d'identité kese ngay am mais lu tax ñu teg ko mooy pour sa carte teel a génn. Mm-hmm. looloo amoon CICES. CICES yaa ngi doon dégg ay temps ñu naan CICES ku fa dem 48 heures sa carte génn. loolu commission d'enrôlement la. mais après ministre de l'intérieur dañu ne daf ko arrêté arrêté. mais dañoo dégg ne toole bi ju kii na ci gaa yëpp daw nañu dem fa pour août quarante ñu arrêté ko maanaam ñii amuñu benn amuñu benn volonté pour ñu Ablaye fi nga ñëw foofu laa bëggoon ñëw sax parce que dafa am ñoo xam ne seen carte d'identité dafa réer ñu dem pour récupérer ko mais jusqu'à présent mënuñ ko jotaat man dama naan est ce ci laxas loo xam ne parce que da ngay gis élection ñu ne diw boo boo voté ki nga xam ne moo nekk ci nguur gi mooy moom sa est-ce que nekkul loolu moo tax des fois carte d'identité ñuy bañ di ko génnee. waaw xam nga xam nga euh, quarante pour euh, quarante yooyu. Mm-hmm. lu ci gën a doy waar mooy soo bokkee Benno Bokk Yaakaar yow doo bouger sa kër mun nga bañ a bouger sa kër. Mm-hmm. sa carte foofu la lay fekk. Kër Massar. Mm-hmm. man maa sol sama dàll dem taxaw ci commission électorale di vérifier ñun dañ doon yeewu cinq heures du matin. ñëw rang man bu may bindu ci liste électorale te xam naa dina la jaaxal lu tax amaguma carte électeur ba léegi ah. dinañ ci ñëw. mais cinq heures du matin dañuy ñëw taxaw rang boobu commission bi sax du ubbi xam nga commission bi neuf heures la war a tëj mm. warul tëj seize heures la war a tëj mais da ngay gis ñoo xamante ne seize heures nit ñi tëj dangay ñëw ran ba quatorze heures yow puusoo paasoo xam nga nit ñi mënuñu taxaw ci naaj bi di rang dañuy dem xool ci ker yi ñu toog fa ku nekk xool ci lool ci ci ci koo topp mm. ndekete waa bennoo dañuy yëpp seeni militant ci ay pick ñëw suñu ñëwee du ñu topp eh. rang bi de dañuy ñu dugal leen directement bindal la jël seen kii wala ñu dem ah, jël seen i wala ñu dem jël seen i données dem rempliral leen ci fichier électoral bi ñëw jox leen seen i récépissé seen kër. c'est grave est-ce que maanaam réew mi lu ko nara a taal loolu la. le fait que ñu ñu gëmloo sénégalais yi kër ni ñaari sénégalais moo am. Mm-hmm. sénégalais bu ànd ak Macky Sall lu ko neex def. Mm-hmm. du sonn ci dara. mais yow soo àndut ak Macky Sall wala ñu ràññee la rek yow tey nga am problème bu toll ni màggalu tuubaa loolu warul am ci réew mi man depuis 2018 ba léegi maa ngi daw sama carte électeur jotuma ci te soo ko waxee nit ñi foog ni yow yaa ngi wër di sensibiliser alors que yow ma bi ma wax ba sonn ñu ne ma mënul nekk élection locale yi en août 2021 mhm. juillet ci lañ ubbi woon fichier ma dem rayante ba bindu sama tur ci liste électorale yor sama récépissé mhm. ñu ne ñu décembre la seen carte électeur di génn mhm. décembre ma wër commission yi nekk Kër Massar gi ñu ne ma sa carte nekku fi finalement benn président commission man sax xaw ma woon seen numéro vert bi waa DAF benn président commission moo ma jox numéro vert bi na ma woote ci ba xam ma woote jot benn daam veille élection locale yi mooy mairie daam bi ma jox ko samay euh, coordonnées ak samay filiation mu vérifié na ma yow Pape Abdoulaye Touré sa carte euh, jàllul maanaam sa inscription bi jàllul dafa dafa dafa dafa dafa dafa tëb. yow Karim Wade yam. non dafa tëb. malheureusement su ma ko teeloon prévoir sax dama leen koy génne parce que mi ngi fii mhm. ñu ne ma dafa tëb ma ne leen comment ça dafa tëb nan la nit di bindoo ngeen jokk récépissé naan kat sa kii jàllul ma ne comment dafa tëb mu raccroché ma mooy woote waat jotuma kenn mhm. mais gis nga élection lo locale yi élection locale yi bu gën a mooy élection locale bu mu jàllee parce que période bu may woote daaf boobu seen plateforme bi doxut mhm. ñoom ñoo koy tey dañuy brouiller plateforme bi b kenn du mën a dugg vérifier mais élection locale yi dañoo voté tey la dimanche voté wax nañu ñu gagné à 3 heures di matin bi ma tëddee sama lal xam nga damay nekk ci internet beeg yooyu ma ne xaaral ma sowaat rek duggaat ci plateforme daaf bi wallahi al azim mi ngi fii capture d'écran ma dugg ci plateforme bi bind samay coordonnées dugal sama numéro carte d'identité ñu ne ma Pape Abdoulaye Touré bureau de vote numéro de école Boune jox ma samay référence électorale yëpp ci koo xamante ne waa daaf ñoo ma ne man sama inscription jàllut loolu doyul de ma wëraat ci commission yi ne leen sama carte gis naa ko mi ngi nii ñu ne ma sa carte ba léegi nekku fi sama carte réer ci diggante bi sama quarante bu ma yoroon réer ma ne léegi kon xam nga ne uti duplicata su ma utee duplicata suy génn dina génnaale carte électeur bi commissariat bu ma dem ñu ne ma Pape Abdoulaye Touré mënoo bindu mënoo ut duplicata mënoo ut carte d'identité demal daaf mais lii tey lii lii lan moo ko gën a mag màgg ci injustice man ma juddoo fi man fii laa juddoo dama ne man fii laa juddoo Sénégal mm. fii Dakaaru Njaay gii hôpital Abass Ndao laa juddoo sama papa sénégalais la fii la juddoo biscuiterie waagu ñaay deux bii sama yaay sénégalaise la sànjara bii la juddoo Gandigal la papam dëkk yaayam dëkk euh, Gandigal man am nationalité sénégalaise bi ma juddoo ba léegi maa ngi topp ci sama carte électeur pour remplir sama devoir citoyen ñu ne duñ ma ko xaj ndax lan àndoog Macky Sall loolu est-ce que yoon la xam ne li dangereux mooy. non non non li réew mi toll tey ci injustice. li lay wax ñun suñu góor yi danoo xaw a cuune tuuti. nga xam ne yow waxanu moom rek nga man mais mënoo voté. xañ ma tax na mu binduloo des milliers de jeunes. parce que def na un engagement personnel mooy même bu ma binduwul dinaa fexe ñu bari bindu. Mm-hmm. tey ji moo war sa engagement. soo war yi def loo xam ne tamit dafa ñaaw parce moom dafa bëgg tànn jiitu réew dafa nga bëgg tànn sa juddoo ba léegi gàcce la ci man munumaa fexe ba dugg ci urne xaw ma nu muy mel maanaam encre bi mu cee cap Ablaye foofu ngay tëjee te soo waxee ñu ne la yow yaay kan yow tojoo fenn ba Macky Sall war a jël sa kii di la ko kii yow maanaam tojoo fenn waaye eh, mais ñoom ñoo génn xaalis war yi dañuy defar carte man tojuma fenn bugguma sax toj fenn man kay ñun kay tabax la ñuy wër. toj fenn sax moo tax ñu bañ laa kii. non tabax la ñuy waaye tey soo jëlee lii soo jëlee ci ci carte électeur yi nga tegee ko ne la. Hmm. wala moo tax ñu dàq ma 5 ans université ne ma waratoo jàngee université. Ah, ba pare génnee ma université carrément. ci loo xamante ne defoo ci dara. waaw ba léegi tojuma fenn de. waaw la moo tax ay 10 éléments gémi ma génn grande porte université Cheikh Anta Diop de ma dóor sama yaram tëcc ba pare yóbbu ma procès ma dem ma gagné leen ci procès bi. Mm. pare wëlbatiku dugal plainte plainte bi depuis deux ans c' était le 21 septembre 2020. Mm. ba fu may wax ñu ngi ci 2023. Mm. presque trois ans plainte boobu puusut paasut. fii la réew mi tey toll soo amee benn engagement bi. dinañ la teg façon injustice boo xam da ngay. tëdd sa néeg sax di jooy ne lii est ce que jar na ko. waaye taxul ñu bàyyi parce que. comme ni mu wax nii voté mënoo am benn dogal si réew loolu tamit. gàcce la ma def gàcce. man ruus naa di wax ak sénégalais yi ne leen man Pape Abdoulaye Touré. bi ma juddoo sama ndey ak sama baay ba léegi. musuma voté. passeport mënu ma ko am parce que aw ma quarante. te ko war a lijjanti ñu ngi fii ci Sénégal ñu ci réew mi. d'accord papier lañ la laaj remplir nga say papier yóbbu. ñu bàyyi sa soxol bi léegi tàggatoo léegi ñu bon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di di di di ñaan ci Sénégal jàmm te Sénégal pour mu am jàmm foog injustice jógee fi sénégal yi nañ leen pour ñu may leen jàmm foog ñu may leen justice waaye li fi xew ci réew mi tey jéggi na dayo ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci suñu teewaay fii di remercier encore une fois tous les membres du mouvement Sénégal notre priorité di leen wax ni liggéey bi am na solo. Mhm. parce que ñun tamit ñu ngi préparer ay plan d'action. parce que mbind bi benn étape la fexe la tout ba sénégalais yi bindu benn étape la waaye tamit fexee la tout ba ñu bind jot seen i mhm. beneen combat la te ñun teel nañ ko comprendre d'ailleurs lancé nañu benn plateforme boo xamante ni. Mhm. bés bu jëli carte jotee dinañ ko ubbi sénégalais yi jotu seen carte yëpp ñu dugal ko ci ñu sol suñu dàll dem DAF direction de l'automatisation des fichiers. encadré sénégalais yooyu bu ñu jot ci seen i ñu ngi waajal aussi ay tournée nationale régionale wallaahi ñi ngi wax nii de te amaguñ sax mooy mais ñun suñuy. Ablaye est-ce seen ginnaaw Ablaye. wallaahi azim fu may waxee ak yow nii. Eh. tournée bi bëggoon nañ ko def laata révision bi. Eh. mais dañ koo fomm ba après révision bi. ndax lan on a pas les moyens et que ñi ngi cotiser suñu biir yàlla mu ngi ñuy suturaal. jaajëf waaw waaw dem leen seeti ñoom Moundiaye Cissé ak ñoom gars du ñàkk gars jàpp ji ah. leen jàppale parce que li ngeen di def lu noble la kon ñu ngi lay gërëm baax Pa Abdoulaye Touré euh, Sénégal notre priorité yor seen communication mi ngi nii xam ne sànq da wax lu am solo des fois mu gisul kilifa yi di jëf ma ne naka de ñoom ñi ñuy jéem a nax ñoo leen ëpp niveau si si boo déggoo booy di wax da ngay sentir ni raw nañ leen lu bari te xamuñu ko ñoom mm-hmm, mm-hmm. Euh, damay ragal nag li yeewul balaa minuit bi Alit Badara Cissé doon wax ñu mën koo waxaat gars yi dafa mel ni ñu ngi nalaw ba léegi. man ma bëggoon juste nga mel ko une seconde rek. man ma dama ko bëggoon dama ko naroon fàtte parce que résidence sànq yaa ngi ko doon wax. pour ñu koy wut ñu leen koy jafel mm. mais code électoral bi soo demee ci disposition yi dafa ne su fekkee yow fi nga amee carte d'identité adresse bi ci nekk sa biir carte d'identité boobu ngay voté maanaam nga dëkk Kër Massar Nord. mu nekk sa biir carte d'identité te a voté Kër Massar soxla woo résidence. dangay ngay photocopie quarante bi rek dem ci commission électorale bi pour ñu soxla résidence mooy ñi nga xamante ne seen adresse bi nekk ci quarante bi méngoowut ak adresse bu ñu war a bindoo ci liste électorale yi bu boobaa da ngay dem sa chef de quartier mu defal la domicile nga jël domicile boobu yóbbu ko mairie mairie jox la résidence nga dem jël résidence boobu boole ko sa photocopie quarante yóbbu ko ci commission électorale bi commission électorale yi am ne ci mairie bi lay ne am am mu nekk demal ci mairie bi laajte commission bi fan la nekk dinañ la ko wax nga dem bindu ji balaa la demee. macha allah Ablaye ah kon euh, euh, mën ngeen seetaan ci solution info tamit ah. mi ngi noonu di la jaajëfal bu baax kon maa jigéen kaddu. ayca mi ngi noonu ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Papa Abdoulaye Dieye Sénégal Papa Abdoulaye Touré Sénégal notre priorité nekk activiste moom it bokk na ca fële nga xamante ne nii moo di société civile ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax